xam naan ne ñoom xëy na bu nga fi gëj xëy na ay tuut tànk lañ ak na de boobu de tuut na lool tuut xam na tuut tànk lañ boobu sama jaar sax gën naa doon xale sala ndeysaan léegi masàllaa na i doo masàllaa masàllaa xam naa baax baax a baax ah ñii moom mënuñ ma réer moom incha allah incha allah gëj xam naa ne moo doyoon waar la waaye ah, léegi na mbokk di yenn yi doo ko doo ko bàyyi xel ba ma ngeen am problème si àll sax fekk sa mbokk te loolu sax xam dara li ko waral mooy a nemmeeku ko wante moo tax dëgg la dëgg la moo ba sa biir nekk ay mbokk lañ te ñàkk xamante la kon nag ngeen mooy seen papa Omar dëkk ba la nekk te defee ñëw gi jeex incha allah rabbi incha loolu neex na doom papa papa si doom da am na solo ah soxna Dia daa mel dog jonn de oh. waaw dog di jonn soxna Dia daa de waaw xanaa waaw jot na kay. Mhm, bisimilah. bisimilah. wax yéen ku nekk lu muy jàng nii di wax nii te lépp bu leen tànnal bu demee noonu. am ñaan la daal ñaan nga ñu war a jàng avant nga leen. boobu ñaan moom ñaan moom. bàyyi sama papa sax leeral ko. ah ah kon loolu day am ci mbir mi. ah waaw xam ah, waaw loolu day su boo wooree bay doog wa ma qadamtu wa ma akartu bismillah a doog. ah noonu la noonu la war na war waaw. bisimilah soxna Diop xeetu kafe gi. koor gi métti woon na nag suñu misaal. ah métti na kay. métti na lool. waaye loo lu métti métti saa boo dogee rek daañu mel ni ko wóorutoon. waaye waxuñ nag nga waxuñ nag nga dog rek naan waaye fayook li ma ñàkk a lekk yëpp déedéet. ah ah. da ngay lekk li am rek. lekk moom lekk rek laa si xam loo tax. déedéet waay. yii. suñu misaal. ok mooy loolu. si daal mi est-ce que daan na wóor. war gi nii daa mel ni daa ndogu daa jot rek ngay di ree rek est waroon nga. waaw waaw baax na. ma ne tuuti tuuti tuuti tuuti baax na baax na sa biir bi métti dal man xel la

Amar xool ko. bisimilah man de daanaka ñëwoon pour leer la leen fas neen jàngal ñaan nga xam ne ni képp kuy képp ku war rek boo demee bay dog sopp nañ nga wax ko du farata nag waaye dañ ko sopp si yow nga wax ko rek waaye du farata. ndax farat gi mooy woor gi rek mais sopp nañ booy doog nga wax lii allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala risqika aftartu faxfir lii maa xaddamtu wa ma aqartu bismillah nga soog a lekk tàndarma yënd bi nag ne woon na booy doog tàndarma moo gën te neen li ngay dogee na doon lu tool na doon trois wala cinq waaye bu mu doon lu yema may daal te dim nee na tàndarma gën soog amul nga doog a wut ndox kon képp ki doog nga bàyyi xel loolu bu baax a baax muy am solo ci koor Ramadan a ngi weeru yërmande Ramadan